Sou, sou, والنجاح يوم لقاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأتقياء وسيد المصلحين من بدء الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أصلح به الإنسان وأصلح به الأكوان وعمر الله عز وجل به الدنيا على طاعة الرحمن صلى الله عليه وعلى آله الكرماء وأصحابه الحكماء وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين إخواني وأحبابي في الله بارك الله عز وجل فيكم أجمعين إن المسلمين اليوم في حاجة إلى ثورة لتصحيح المفاهيم الإسلامية فقد فقه كثير من المسلمين الدين على أنه العبادات التي افترضها رب العالمين من صلاة وصيام وزكاة وحج وما زاد على ذلك من تسبيح أو ذكر أو فكر أو ما شابه ذلك وظنوا أن ذلك هو الطريق الوحيد والسبيل الأكيد لإرضاء الله سبحانه وتعالى وتركوا الدنيا ولم يعمروها على شرع الله مع أن القرآن كتاب حياتنا فكل ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا جعله الله عز وجل في القرآن من قيم وأخلاق تهذب السلوك والعادات لكن المؤمنين ظنوا أن تلاوة القرآن هي المطلوبة من كل مؤمن وحسب ولذلك نجدهم في رمضان يتسابقون ويتفاخرون فمنا من يقول قرأته خمس مرات ومنا من يقول قرأته عشر مرات فما أثر هذه التلاوة في سلوكنا وأخلاقنا وفي حياتنا هذا هو المهم لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بتلاوة القرآن قال في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فحديثنا اليوم سوف يدور إن شاء الله حول المواطنية أو التجنس أو القومية ينبغي جلدي في تويب تدائرة الصبر والوفاء أمبلين نيوغي دلوات دي سنتيالا تنيت ñaar maam Seydou El Hadj si bind na ko waaye benn bi tudd ko benn bi tudd ko li ñu war a tax yàlla ñaar maam Cheikh El Hadj Malick tudd na ko benn bi nag nit ay def yitte xam ni lu mu ci am na yëg ni xéewal la wala ci xéewal yi la bokk مولودنا نعمة الإيجاد تدنا نعمة الإيجاد تدنا نعمة الإمداد عمل بينو يلا عمل تخيولي تخيولي لبق alimenter di ñu yàlla alimenter ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu mën a woor weer wi xalaat ci jataay bu mel nii te ay bokki jullit rek seq ko ci xéewal yi la bokk waaye ñun ñi fi teewoon daaw ñàkkul am na ñu ci bokkoon daaw te ren fekku leen fi waaw des bi ñu fi des ci xéewal la bokk فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وهم نعمة الإمهال ومن شخص بن الحاج مالك تبدو التخيل أصدقائي نعمة الإمهال نعمة الإيجاد نعمة الإمداد نعمة الإمهال موي باي ديني في الله باي ديني بانيو ديسني فيه تخيولي لبوك فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نيجي بوك دي سانتي يالا تي نيت يوي ييب عمل دي مو عمل بوله دي مو ني بوله من امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك باي دي مو ني في بايي دي يوي ييب نتي بوك سانتي يالا di nuyu ci turu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz sunu kilifa sunu Serigne mi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi le président Alhaji Babacar Bèye mi ngi koy nuyu ak mbooleem ku aju ci daayiratu sabri wal wafa di ko jaale itam mbokkam mi fi jóge yal na yàlla yokku ko yërmande te dolli ko leer ci barke weer bu tedd bi di nuyu soxna Asietu Géy di sunu ndey di sunu bàjjan buñ ko nuyu nañu mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo ëmb daayiratu sabri wal wafa ak seen trésorière soxna Habibatu Diop ak képp ku mu njaboot di nuyu imam Kandji di nuyu imam Seck di nuyu imam Diouf di nuyu imam Diallo ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay di nuyu le maire Cheikh Gueye di nuyu chef de quartier bi madame Khady Diop di beral cant ak ngërëm nag parrain yi nga xam ni ñoom lañu pare parrainé bis bi di El Hadji Makhtar ak njabootam yépp di nuyu marraine bi Hadja Awa Mbaay ak njabootam yëpp di nuyu alxaaji Ibrahima Mbuub mi ngi fi di nuyu alxaaji Mboor Diop di loxo sunu papa Serigne Babacar Abdoul Aziz di soppeem di xaritam di lépp di nuyu nag kenn ci moom ñu alxaaji Njawar Samb ñun ñoo bokk bàyyi bokk lépp ku xam alxaaji Cheikh Samb xam alxaaji Mansour xam Baye Alhaji Abdoul Aziz Sy xam Cheikh Mouhamadul Habib suma turandoo xam ko ak Cheikh Seydi Aboubacar doo laaj kan mooy Njawa Samb kon yow yal na yàlla yokk sa fan yokk sa sutura di nuyu waa daara ji yëpp Alhaji Mansour waa Masjidu Rasul tabaraka Allah Ibrahima lay nuyu bu baax di nuyu ah Mouhamad Bousso fi doon jàng alquran léegi di sant nag yàlla bu baax ci dugg. Chérif Sidi Hamza bi fi agsi léegi tànk yi mu jóge nooy mu fi nooy ñaan gi mu fi ñaan ci barke maamam Cheikh Sidi Ahmed Tijani Chérif al Fatimi yàlla nañ ko yàlla bokk na mu mel na suñu waxtaanu tey mi ngi jëm ci li ñoo tuddee civisme l'islam moom nan la ko gisee nan la ko lislaam gisee muy lu tumuranke ci jamono ñu koy wax al muwaatiniyatu mafhumul muwaatana la notion de citoyenneté nit ki war na ko xam waaye bala mu koy xam li ko bëgg a wax war nañ ko wax mooy lan dañu wax ni fa inna muwatana kalima mushtaqa min al watan arab bi nee nañu baatu muwatana mi ngi dérivé ci baat bi ñuy tuddee watan al watan ci tubaab mën nañ ko tuddee pays wala sa patrie wala sa nation wala sa kër gi nga dëkke sax am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax Ibnu Mandur dafa ni daal bu ñuy wax civisme buñ ko bëggee dëgg rek ci boppam buñ ko tuddee pays buñ ko tuddee patrie buñ ko tuddee nation bi annahu al manzil alladi tuqimu fii nañ ko tuddee kër gi nga xam ni fa nga yeewoo nekk faak say bokk te digaale ak ñoom ñoom it ñu digaale ak yow nga xam ni dañu wax nag ni civisme li muy firndeel dafa war a nekk alaaqa وطيدة محددة بدستور وقوانين تربط بين الفرد ودولته. dafa nekk ay relation yu solide yu étroite bien établi yu nekk yu spécifique yoo xam ni dafay tënku ci ay loi tënku ci constitution boo xam ni moom mooy lié nit ki ci jëmmi boppam ak dëkk bi mu dëkk moo tax ngeen dégg ñu bari di faral di wax naan xubbul watan minal iman dem nañ ba gis ni ndekete Euh, ngëm yàlla bokk na ci li koy firndeel mooy bëgg gi bëgg sa réew mooy bëgg mooy bëgg gi bëgg sa ay dëkkaale waaye ñu ne ci charte bu fekkee ni ay loi daf ko war a tënk dafa war a tënku ci constitution war na mën a fekk constitution boobu ak loi yooyu mu mën a garantir ñe nit ñaar أن تتضمن له المساواة بين المواطنين والعيش المشترك égalité de droits des citoyens dafay garantir nit ki ba mu xam ni lépp luñ fiy def moo ñëpp ñoo ci bokk yam ba nga xam ne du am benn discrimination bokk na ca mu garantir la coexistence wala cohabitation ni nit ñi war di dunde ci seen diggante ndax nit bu yëgee ni dañ ko bodd ci xeetam dana am lu mu yëg ci boppam bu gisee ni tamit ñi mu dëkk ñi mu dëkkaaleel li war a dox ci seen diggante amu ca lu dul xanaa di yëkkati gor di suufeel gor ah dana wane ni dañ ko xeet moo tax faw pour ñu mën a dund civisme dëgg nit ki ci boppam bi citoyen bi faaw ñu garantiral ko ñaar yii te mu al musaawatu bayna al muwatinin wal aysh al mushtarik kon li ci jëkk bala ngay wax nit ki yii yëpp dafa am yu war a jiitu buñ doon tënk si gis dëgg ci yii lañ koy tënk ci jàng ci yar ci yee ci wan yewwi ko dénk ko nit ki danga ko war a jàngal ba mu xam boo ko jàngalee ba mu xam nga yar ko ba mu yaru boo ko yaree ba mu yaru nga yee ko ba mu yeewu boo ko yeewee ba mu yeewu nga wan ko ba mu gis boo ko wanee ba mu gis nga yewwi ko nga yewwi ko ndax bari na ko def lii ci nit ba noppi dëgg moo tax boroom xam-xam yi dañu laaj ñu ni waaw ki ñu xamal lii lépp ba pare tënk ko est-ce que jaar na boo ko fekkee ci ay melaw nga yeeku est-ce que ki nga xamal ki nga jàngal ba mu xam yar ba mu yar yee ko ba mu yeewu wan ko ba mu gis nga tënk ko est-ce que jaagu na nga fekk ko muy nelaw nga yee ko imaam nee na day mel ni dootu ko jar ñu ne lu tax waruñu ko yee ñu ni mën na am bi muy nelaw ñu ni mën na am bi muy ngi gént liberté am kon jarul di yàq ay nelawam beneen boroom xam-xam ne déedéet muy nelaw di gént liberté am yee ko waxtaan ak moom ci liberté moo ko gën kii nelaw diggante liberté nee nañu nga yee ko di ko wax liberté moo gën nga bàyyi ko ci nelaw yi mu di ko gént moo tax principe bu jàngal la ba noppi yewwi la moom la maam Cheikh El Hadj Malick gis boo ko yewwee ba noppi nga dénk ko nañu dénkaane ba la ci ëpp solo nga xam ni daanaka lislaam principe civisme ci la ko tënk mooy laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi nit ki boo ko yeewee li koy dénk mooy na xam ni lépp looy daj àdduna di ko sonne du pour yow lépp loo bëgg ñu delloo la ko sonneel noo koy joxe nit ñi ndax boo ko soxlaa buñ la koy jox doo ko laaj am na benn discipline sportive buy am ci Jeux olympiques ñu koy wax relais ñu koy wax relais gis na nit ki bu ciy tàggat yaramam du pour moom xam nga kan lay sonnal ki mu war a jox bateau bi parce que ballon bi lay xaar mu teg ko ci loxoom kon nekk la muy sonn yëpp du pour moom pour ki mu war a teg ballon bi ci loxoom la kooku tamit la muy daj da ko jot la muy daj moom it lépp ci ay entraînement am ballon ba ak moom mi sonn la muy sonn yëpp moom it ma koy sonnal kam koo war a jox loolu mooy principe wax bi laa yuminu ahadukum حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كنت نيت بول بتيكو خامني ني سنغم يالا يالا كوي نات توجور تي ليغا بوغ فخيل با نياو كو موي بو مو رافيت با مو مان كو la xat ca yow bu ko solal kenn ndax li nga yëg bi nga ko solee keneen ku ko yëg keneen ku ko sol loolu la cay yëg moo tax ñu ni bu yiy weesoo nit ki war na xam kayfa yataxaqaq mafhumul muwaatana fi islam comment réaliser le concept de citoyenneté ñu nit ci ñeent la tënk concept de citoyenneté ci ñeent la tënk bi ci jëkk mooy al musaawatu égalité bi ko ñaareel mooy al xurriyatu la liberté bi ko ñetteel mooy al musharakatu participation civique wala partenariat bi ko ñeenteel mooy al masuliyatu al ijtimaiyatu responsabilité sociale sociale al musaawatu égalité وعدم التمييز بين البشر في الاسلام ايغاليتي يمتي لب تدو ام بودنتي موتاخ من اعظم الصفات الانسانيه وحقوق الانسان التي ناداها وعمل لاجلها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حق المساواه بين البشر فكان لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى يا لنا القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ما دفلن أي نسيون يوتي وقبائل كبير نسيون ما كريتي أي تريبيون ay tribune yoo xam ni man yàlla xaw ma ca juddu xaw ma ca daraja xaw ma ndomba tànk bu nit am li ci xam mooy inna akramakum inda allah atqakum inna akramakum inda allah atqakum moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toujours buy jàngale mi ngi bëgg jumtukaayu nit yi muy jëfandikoo la plupart du temps ci lay fexe ba li mu bëgg a wax mu misaal ko ci nit ki di jëfandikoo moo tax mu ne annaasu kulluhum sawaasiya ka asnaanil mush yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi dem ci marché bi jënd peñ di ci defar sa bopp ba mu yóbbul la kawar gi fi nga ko bëggee jënqil la ko defal la ko ni nga ko bëggee nee na peñ boobu balaa nga koy teg na ko xool gis nga na bëñ ya tolloo ba mu defal la li nga bëgg jàppal ni nit ñëpp ñoo bokk yemee noonu ca kanamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo tax amul benn jataay bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog moo xam ca jàkkam jala moo xam ci ëttu këram la moo xam ci péncu màkka la ba nga wàcc fa xàmmee fa ku ak ku nga xàmmee fa ku yor ndomba tànk ak ku ko yorul wala nga xàmmee fa ku mën ak ku mënul ñëpp ñoo bokkoon yam ci moom nga xam ne ni yàlla bind ñëpp te kenn ku nekk loo am yàlla la ko sédd moo tax bu ñuy wax cadre de vie nit ñi defe nañu ay espace yu ñuy créer la sa cadre de vie mi ngi tàmbalee ci nga toppatoo sa xol nit cadre de vie mi ngi tàmbalee ci xol ci li nga ci war a ak li nga ci war a ak li nga xam ni nga war aar ba xol bi loolu lu ci dugg ndax bëri na ku dem fii ci parc bu ànd dàq fa naqaram te garab yi yënguñu sax di da am naqar ah? bëri na ku dem fii ci parc ànd toog fa di feex mu ngir feexal sa bopp ak génne li ci sa xol te garab yi la wër yëguñ ni sax da am naqar xam nga lu ko indi ñoom dañu respecté seen cadre de vie moo tax ngelaw rek la ñu am ak seen i odeur boo ñëwee dugg ci seen biir ñu dox la ko ba nga doyal sëkk tax nit sa cadre de vie mi ngi tàmbalee ci sa xol moo tax maam seydul xaaji mansour anhu ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu daan doxale ci digganteem ak nit ba yamale ki am ak ki ñàkk di koy xas ak di koy wax lu lu lu baax moom la Cheikh Seydi El Hadj Mouhamadul Mansour radiallahu anhu taataan doon ko dénk rakkam lu baax bi Cheybat Alhamdi alaarif billah bu zamanihi Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mu ñu ko wa sawwi أهل الغنى والفقر فيك ومن أتى يذم ومن قد كان يطريك سيدي عبد العزيز bés ngi ñëw boo xam ni dana am njaboot bu la yàlla dégg waaye boo ci teqalee ku am ak ku ñàkk tas yaakaaru mbooloo ci am ak ki ñàkk nañu yem ci sa teraanga ki ñëwit ubbi sa bunt doxal bi la baaraamam sippi la lépp lu nekkoon ci xolam dégg na ko ba mu daaneel nga laaj ko lu ko naqari nga fajal ko te la mu la wax na nga ko yéegal ca daraje ki fëgg sa bunt indil la teraanga taxaw di la teg bi ci des ma di la dénk wala tuzakki bi daawa annaasi muctaqidan fadlan ala alxayri faxdar min amaanik tagg yi la nit ñiy tagg Maodo la sa fay tooy sa yaay sëriñ haadee sa sëriñ ba bàkk la ba way way wuree wa bu mu tax mukk nga daj sa bopp ndax sa baay Seydul Xaji Malik waxoon na wala ko mën a tong waaye Maodo yéegul kon wala tuzakki bi daawa nafsi muctaqidan fadlan ala alxayri fahdan min amami mi ngi ko defee iqtibaas ci wax ji yàlla wax ci alquran ne fala tuzakku anfusakum yàlla nee na bu ma kenn wan noo toll bu ma kenn wan noo toll bu ma kenn wan juddu bu ma kenn wan dayo bu ma kenn wan daraja huwa alamu bi man ittaqa kenn ku ci ne la nga nekk la nga ma ca waxul laa gën a xam li nga wax kenn ku ci ne la nga nekk la nga ma ca gën nëpp la nga nëpp laa gën a xam la nga ma wal kon falaa tuzakku anfusakum fa tamdaxuha wa tasfuha bi taqwa ah xajal leen ko doomu diw la mooy doomu xalifa bi ak si na fi léegi tax nga jéggi nit tax ñu yëkkati asgor ne la toogal fii ka wàcc toog ci suuf est-ce que xam bi nga toogee kan la ak nan la toll ci yàlla bàyyi alxaaji Galo Mbay ca Tiwaawan dama ko ma seeti ñuy waxtaan ma laaj ko ne ko xew-xew yi xew ci Tiwaawan dama la gul gis ngay teew ci tànt yi te yow fii nga bokk ndax buur gi nen na mbay ak fi boole fekk mu may nettali bi maamam jëlee bàyyam di ko joxe Cheikh Sidil Hadj Malick Sy radiallahu anhu mu ni ma Habib yàlla daf ma nattoo wërsëg te bëgguma di dugg ci tànt ñu fekk borom bu mu woyof ci àdduna dëddis ca yàlla ñu yëkkati ko toog loo ma ci place ma yàqu te duma ko yëg mu ne yàlla def ma nattoo wërsëg te bëgguma dugg ci tànt bu may dugg dootuñu gis galox wërsëg bi la ñuy gis ba fekk ko woyof mu lool ci bëtu nit diis lool ca yàlla ñu ko ee dugal may ko mu jóg ma toog ci yàq te du ma ko yëg moo tax ma préféré lu fi xew eh. rek ma ñëw lal ca gannaaw déglu taataan barkee jóg ñibbi fala tuzakku anfusakum fatamdahuha wa tasfuha bi taqwa moo tax yàlla ya borom wa taala ci cadre musaawa égalité gis nga mu ne yonent bi xoolal aaya bi fi mu ko tàmbalee fa bima rahmatin min allahi fa bima rahmatin min allahi yàllaa ngi woon yonent bi ne ko ah bari na loo mën de waaye bu dul woon sama loxo yërmande bi ma diigal ci sa xol roof ko ci sa biir saxaaba yi kon bari na looy jéem du sotti قل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بؤكلون سكنم يا تنسفن جتاي بي بمنا ملني بود آدم نيان تباك كو يالا مايون باركلي ولي يلوون إتم bari wan xam-xam lol bokko nit ci bi tariqa maulana Cheikh Seydi Ahmed tijani Chérif bay Abdou Niang daf man nettali tadini limu yoron ci ci bu yeen ak ne yere rafete na mu kenn xamul nu mu toll waaye fekk rek xaftan bu fagg lay sol ak jaay bu xotte ne na bés ma ko waaw góor bi yow li la yàlla dénk ci ay maal lépp ngi fees ak ñii la yaakaar bis bu ne di yaakaar yàlla ci sa ngël ci yow la ñuy ci yow la ñuy reere yaag ñoom ci jàkka ji yaag ñoom ci daara ji yaag ñoom ci tool yi ndax mënuloo di sol yére yu xaw a baax tuuti ndax ñi la fiy fekk mu ne ko Abdou ñii ma yàlla booleel ay góor lañu ñu xañ seen bopp seen bopp sédd ma seen bopp bu ma leen a jéem a nuru bu ma leen nuruwul li ñu sol bu ñu yàq ci barab bi moo tax ma nëbb li ma am lépp ngir ñoom ñu am fierté ci lu ñu mel ak man moo tax may sol lu gën a xotteeku lu gën a suufe ñoom li ñu sol pour ñu xam ne ci man lañu bokk bokk man it ci ñoom laa bokk lii alxaaji Adama ñu wax na ko ca Mbàkke moo tax yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ubbiwul woon sa kanam yaatal sa bët kon jataay bii nga toogee ak saxaaba yi du mën a mel nii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga mission yi muy rëy rëy yépp يلا دفع حلال النبوت وتلقوا بين فرنسيين مي أبو بكر جحكو بين الدكان مي عمر بن الخطاب جحكو بين السماء مي علي بن أبي طالب جحكو بين الكونسي مي عثمان بن عفان مي عثمان بن عفان waye aya bi li ci yalla bëgg jangale daf ci indi ñett bir ñent digal ko فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بدل يعلمون فاعفو بن واستغفر نعم وشاور نت فتوكل مات نعم. فاعفو بن واستغفر نيا نعم. وشاور نت نعم. فتوكل نيت قال لي يلا نمي دريسي كليفا فاعفو عنهم نانا لين ديجل سيدي رتش رتش نختي يا ولا نخل am na loo xam ni kuñ ko yan koo dal ci kawam yaa ko tooñ ku dal ci sa kawit yaa ko tooñ ndax yaay ci war a moytu ndax li nga yan mu ni ko faafu anhum wastaghfir lahum xam nga lu koy dëggal lan mooy dëggal ni ñoom seen sikk yow Muhammad jàmbatuloo ko mooy ku ci tooñ nga sol dàll jéggalul ko rawatina bu jëmee ci man yàlla wa shawirhum fil amri li ngeen seq ci mbir yi te nga am ci sañ-sañ te dernier mot bi toujours di des ci yow te loo ci dogal ñoom kenn amu ci baat bu mu ciy teg wala nga ciy def dara diisoo ci ak ñoom ñu xam ni ci lañu bokk boo demee nag ba ngeen diisoo ba tënk lépp ci benn kàddu la nga dogu yow Muhammad man yàlla bàyyi ko ci sama loxo fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin boo ko defee def nga lu ma neex boo ko defee def nga lu ma neex ndax maa la wax ni fa tawakkal wëlbati ko xamal la ne inna allaha yuhibbul mutawakkilin kon boo ko defee def nga lu ma neex kooku mooy al musaawatu ñu ñëw ci al xurriyatu في الإسلام la liberté d'opinion, de pensée, d'expression en matière politique, religieuse et philosophique. Liberté d'opinion, de pensée, d'expression en matière politique, religieuse et philosophique. xoolal Yalla. Yalla. moo bind nit ñi moom leen di de sañ société ñaar yi defar société doxul ci mooy diisoo ak am kilifa diisoo ak am kilifa mooy doxal société société bu dox ci ñaar yooyu la mais yàlla amul kilifa te du diisoo yàlla amul kilifa te diisoo te moom moo santaane diisoo santaane itam ni toppante gis nga réglu charia ak xaqiqa ni muy dox yàlla du diisoo mukk borom iraada la borom machia la lu ko neex lay def te kenn du ko laaj pourquoi moo tax dinaay dégg ci réew mi léeg-léeg ma dégg kàddu yoo xam ni mu ne ah Sénégal léeg-léeg ñu wax wax ju waaye bu ñu xamoon la muy tekki ca yàlla dugg nañu aljanna bu yàgg léeg-léeg nga dégg ñu ni ku ni nammuma dara wax oh, bu rëy te xam nga yàlla bala muy jugóob jaamam jaam ba bañ a namm dara yàlla wala muy mën a jox loxo jaamam jaam ba day bañ a namm dara lu tax yàlla dafa am lu mu namm ba noppi dugg ci namm namu yàlla moo gën di wut loo namm ci kanam yàlla moo tax maam alxaaji yusufa jóg ca faas dégg naa mos na wax ni ah waaw gaa ñi ku ci am looy bëgg nga gaaw ko bëgg bala yàlla di bëgg ku ci am loo bëgg gaawal bala yàlla di bëgg ndax bu yàlla xasee ba bëgg sa bëgg-bëgg dafay dàq nit ñi bëgg ci xalaat mu ne ah yàlla bëgg na ba noppi ji ñu ne ko waaw comme bëgg-bëgg mënul ñàkk nu ñuy def mu ne xanaa dugg ci bëgg-bëgg yàlla قد رجعت حاتمان الملك تريد ربنا مريد وأريد ولا يقول رب غير ما وتقع الحرية لا ليبرتي yàlla nee na inna hadaynaahu sabila yéena nit naa ko bind jox ko xel def ci moomu yëg-yëg tabax conscience am ba pare jox ko liberté mu war a tànn jox ko liberté mu war a tànn xam nga nasaraan bu lay jàng moom sa xel lay utiliser waaye lislaam bu lay jàng moom sa xol lay utiliser ci aqida la lay tënk tubaab nag ci principe la lay tënk dama ne bu la waxee liberté de choix rek dafay tege ni la yàlla parce que yàlla mi la ni léegi am nga sañ-sañ ci choisir lu la neex choix ba bala mu doon am importance dëgg day fekk moom yàlla porté wul choix am ci dara day fekk moom yàlla porté wul choix am ci dara kon la nga tànn am nga ci sañ-sañu tànn. mais bu fekkee yàlla dafa porte choix am ci dara ba noppi dala tànn kiran maanaa imma muminan shakiran aw kafuuran jaaxilan moo tax wàllu liberté maam Abdul Aziz radiallahu anhu daan na wax ni waxuma liberté mais total sax bu ngeen ko am waxuma liberté mais total sax du ngeen ko am ndax nit ku libre moo amul nit ku libre moo amul parce que àdduna dafa laajul liberté maam Cheikh Alhaji Mansour radiallahu anhu nee na bala ngay xam ne àdduna amul liberté nee na nee na tooñ fi ak ñu tooñ la nga fayu xaj nee na nga nee na nee na tooñ fi xaju fi ñu tooñ la nga fayu xaj moo tax ci diine li ñu tuddee liberté pour nit ñi war ko dund mooy kenn ku ci nekk bu ko juddu tënk ci nit bu ko dara ja tënk ci nit kii sa du Seydil Haaji wàccal xajal ko jóg lu ngeen am jox leen ko bu waxee kenn waru la wax adduna du doxee noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox na ko mission vingt trois ans vingt trois ans ne ko lenn rek laa lay ñaan laa ko xarrij lisaanaka bihi li taajala dama xam nit ñi ak seen liberté de pensée et d'expression تبوحك سخل من نن لكو فانسي من يالا نك دوما واخ دي سكن دي كو تي خل باي ماما واخال سما بوب وتا بسم النبي الله موسى عليه السلام بيكو يالا دي يوني تي فرعون مني كو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دي نيو ساتي كانام واختاني ndax ki nga may yebal ci moom dang ko dënk ci sa maanute gisu la man nag dang ma dënk ci sa yërmande ma gis ñu ngi nuyu suñu bàjjen soxna di ko ndokkeel bu baax man dang ma dënk ci yërmande moom nga ko ci sa kon principe bi nga ma yabalee ci moom man may dem man sama bët du jóg ci yow te moom bëtam daju la am na liberté boo xam ne dafa ne lu taxaw ci kanam war na ko mën a faagaat l'islam ne genre liberté boobu waxuma ko day nekk liberté bàyyi na lu la neex def lu la neex wax fu la neex waxee boo waxee blessé nit xamatoo la lay lan xamatoo fanay fan xamatoo kanay kan moo tax umar ibnu alxataab radiallahu anhu fi xilaafatihi ak amar ibnu alaas fi wilayatihi ca Masr dafa am contentieux bu mos a dox ci seen diggante Umar yor xilaafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam désigné Amar ibnu al As comme gouverneur ca Égypte ñu organiser benn course hippique doomu gouverneur bi ñu participer ci course bi benn xale bu bokk ci biir xib mën a njàpp lool te xam fas mën a njàpp lool te xam fas ci course bi raw doomu buur course ba jeex mu indi xale bi ci diggu penc bi duma ko ah waaw kiram duma yu metti duma ko ngir sañoo fay duma ko ngir xamoo ki nga raw duma ko ngir xamoo ki ma jur bàyyu xale ba di ko am farata yeewu suba sang xale bi solal ko mbubb ànd ak moom dem madinatul munawwar li mu namm ci jëf ji mooy ki ne bu ñu yilifee it am na ku ko yilif dem ba ca Umar ibnul Xattaab mu ne ko dama la soxla woon mu recevoir ko mu nettali ko mbir mi ni mu tëddee Omar bind leet Omar ibnul Aas ne ko yàgg sa doom jooju diw te def nangam ak nangam na ngeen fi ànd ngeen ñëw wuy si mu ànd ak doom ji ñëw Omar dal di con daal di convoquer assemblée bi yëpp mu ne xale bi waxal lu la ki def mu netali ko ba mu jeex mu ni doomu Amar ibn al-As bi ne ko ya ko def mu ni ko waaw Omar rot ci yaru sharia def ko xale bi ne ko fay jitaluma la ci dëkk ba pour ngay jaamuloo nit ñi sa bopp biiru góor ak biiru jaam kenn du ko xam ne ku juddu góor yaay màgg nag jéem a gore bu mu amati loolu nag mën nañ ci jànge lu bare bare ci jànge lu bare bare bare nga dem ci banque yi wala nga dem ci western union yi nga dem ci

même bu la ko cër mayee sa ngor war na ko mën a bañ léeg nga dem ci hôpitaux yi rang ba gis ñu la gën a feebar ñu ne ah may na ko gis doomu sëriñ wala doomu ministre wala doomu président de la li may wax dafa concerné bépp njabootu borom ndoom ba tànk sañu ñu tudd ñeneen génn ci suñu bopp

seetal yàlla nit diine di toll te man te mu ni waman yabtaxi xayral islaama diina ba pare ne laa ikraha diin yoo yonent bi bàyyi leen ak seen conscience bu tranquille man bëgguma nit ku may jaamu ci jabbatu dama bëgg nit bala mu may gëm mu làmb ma daj ba daj ma ci boppam bu boobaa bu may jaamu daf may jaamu ci conviction waaye lu tax ngay jaamu yàlla nga ne ah dama fekk samay papa samay maam rek nekk ci mais yow amuloo lu la convaincre sa digganteeg sa borom ba tax nga war a mën a yëngal sa buumu jaam sa digganteeg yàlla ah yàlla mu ne ci bi laa ikraha fi diin naa leen xel dox naa leen yëpp yëpp qad tabayyana rushd min al-ghayy bàyyi leen kenn ku ci ne xàmmee na sawu bëy ak deuxième attaay kenn ku ne xàmmee na sawu bëy ci kaasu attaay ak deuxième attaay nu benn de ay bokk ñamee yàlla nag nee ku ko ni jàkk te sa bët may lokk bu ko sa làmmiñ di laal ngay xam lenn lu ne lu mu doon

bi ixwaani yi te xoolal loolu yàlla mi ngi ko digle waaye moo ci jëkk moom wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla la léppam sotti te loxo kenn dugg ci waaye bi léppam sottee dafa ni jibril téyel ma lii mikailu téyel ma lii azrailu téyel ma lii asrafilu téyel ma lii ñu pare ci mu indiwaat ay ay ay anbiya indi ay mursalin indi ay awliya indi ay awtaad indi ay nuqaba indi ay nujaba yëpp rek pour participation bi ci société islamique mën a dox ku nekk rôle bi ngay joué mooy li ma wax sànq yonent bi ku mat la ci loxo yàlla waaye bi nga ko defee dugal ko ci cadre nit ci qul innama ana basharun mislukum rek li yàlla njëkk a def xam na ni faaw notion citoyenneté faaw ñu doxal ko ci kaw suuf te faaw demlante ak dikkalante am ci jëf faaw mu am ci jëflante faaw mu am ci jëfandiku faaw mu am ci faaw jëf am ci jëflante am ci jëfandiku am ci mu indi Aboubacar jox ان عمر جهكو ان علي جهكو ان عثمان جهكو نونو يونتي بي مولين شيري نودول نيوني نك نيت نيوني نيولين شيري ولقد اتينا موسى الكتاب يالا نينا كونستيتيوشن بي ني واخ تورات ما كنت فر بامو جات ما تكو تي لوخو موسى عليه السلام waye man yàlla xamna ni musa rek du doy ci bopam waja'alna maahu akhahu harun wazira waja'alna maahu akhahu harun wazira ndax dafa am mission bu ma chargé Moussa waaye continue mission bi faaw mu ëpp ko ci dimbali te pour mu dimbale ko ci faaw ni musa xam ko ko xam ba tax ku bëgg sa secrétaire di la wuutu sa gannaaw day fekk dossier yi ngay traité mu mën ci jot wa jaalna maahu axaahu haaruna nabiyan kon li Moussa xam li ma def ci moom li ma sol ci moom xamal naa ko haaruna mu nekk muwaasaran wa muayadan wa naasiran wa muinan lahu yàlla di ñu nekk bi muy paree yónni Moussa ci Firawna lan la musa proposé suñu borom mu ni ko pare naa ci engagement bi moo tax maa ngi posé benn question yonent yi la ñu yónni ci nit ñi waaye yonent yi ñoom kan la ñu yónni ci ñoom ku ko xam nag ma ci dimbali yonent yi la ñu yónni ci nit ñi waaye yonent yi ñoom tan la ñu yónni ci ñoom ah dama koy laaj maa ngi koy laaj yonent yi la ñu yónni ci nit ñi waaye ñoom yonent yi kan lañu yónni ci ñoom lan la Moussa proposé mu ni wajaal li waziran min ahli Moussa moo gore waaw moo tax gis nga aaya boo ko toppee ba mu jeex li Moussa dégg keneen déggatu baik Alxaaji Maxtaar Jóob dafa ni ku dul yàlla soxla nga ndimbal ku dul yàlla soxla nga ndimbal ku dul inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaghfira laka Allah moom rek moo ko dégg waaye toog tàllal yàlla loxo di ko la dinaa la ko ها موسى rek moo dégg xad سبلك يا موسى Moussa يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتغل به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم ولقد أوتيت سؤالك يا موسى جرجف شان حجماني جرجف شان حجماني خيال اللي موي دي موسى دي يب yàlla def ci yëgul def yoon lu mu ñaan bàyyi mbokkam li Moussa di ñaan lépp yàlla ah. yàlla def ci yëgul lu Moussa ñaan bàyyi mbokkam moo tax mu daanal rek muy ko ak uddi de subbaka def naa lépp moo tax nangu naa ci làmmiñu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz nee na maam Cheikh Al Hadj Omarul Fouti sultaanul aarifin nee na bokk na ci formulu ñaanam da daan wax yàlla yàlla na nga faj aajooy jaam yi fajaale ci sama aajo wax bu ah. na nga faj aajooy jaam ci sama aajo daanaka mooy xaw a nuru ñaanu nabiyullahi Musa dégg nga mu ni ko Haaruna axi ushdud bihi azri dama bëgg mu di ma assister di def ci yëgul lu Moussa ñaan bàyyi mbokkam moo tax mu daaneel rek muy ko xat uti tax nangu naa ci làmmiñu Serigne Babacar Sy Al Hadj Omarul Fouti sultaanul na bokk na ci formule ñaanam da daan wax yàlla yàlla na nga faj aajooy jaam yi fajaale ci sama aajooy wax bu rëy yàlla yàlla na nga faj aajooy jaam yi fajaale ci sama aajo daanaka mooy xaw a nuru ñaanu nabiyullahi Muusa dégg nga mu ni ko Haaruna axi ushdud bihi azri dama bëgg mu di ma assisté di ma taxaw washrikhu fi amri dama dugg li nga ma sant borom xel laa te du ñàkk waaye ma di diisoo ak moom si Cheikh Ndiaye Ndiaye Cheikh toogal ne toogal délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi defal sant nuyoo di ko ndokkeel ci jataay bi jataay bi jataay la barab bi barabam la tabarakallah washrikhu fi amri Moussa ngi naan yàlla borom xel laa te xam naa ni njuumte du wees ci man dama bëgg nga boole maag Haaruna ndax li ma dégg ma ciy diisoo ak moom moo tax yàlla principe innamal mu'minuuna ixwa الأخوة في الدين يلا نينا من موتاخ ماني واخني ماني واخني اقرا مانكوي تكرار ديكو تكرارات اقرا بسم ربك الذي خلق يلا جانغلو في يونتي صلى الله عليه وسلم يلا جانغل ميغي تامبالي ادم عليه السلام wa allama aadama al asmaa kulliha yàlla nee na mi ci àllu ji jàngal naa ko aadama waaye man a aji jàngale ji dafa am ku ma war a jàng te kooku cëram la moo tax bu yonent bi ñëwee mun ko iqra bismi rabbika waxuma yow nga jàngal aadama jàngal waaye dama bëgg nga jàngal ki nga jàng ki jàngal aadama dama bëgg nga jàng ci jàngal aadama ndax bu yonent bi jàngul woon yàlla kon qul huwa allahu ahad du mën a wàcc ndax mooy identité yàlla ci alquran qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad yàlla nee na man daal sama diine ji laa am mbokku deret day fekk diine bokk ci bokkul deret day fekk diine bokku ci bu ci diine bokkul nag na ngeen jàpp ni man mi nga xam ne maa fàtte sama diir ne innamal mu'minuuna ixwa bu la diine mënul booleeg nit ñi la la booleeg nit ñi sama yoon nekk ci ndax man yàlla kenn juruma te juruma kenn kenn juruma te juruma kenn moo tax yàlla ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axaway mbokk gi leen diine boole na ngeen fexe ba concorde am ci bu ngeen àndee bennoo ci xalaat bennoo ci jëfi bennoo ci waxi bennoo ci yéene te kenn ku ci nekk la ci ca diggaaleeg sa moroom nga bàyyi ma ci xet man yàlla bu boobaa laallakum turhamun am ngeen sañ-sañ yaakaar sama yërmande moo tax laa Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy maa ngi leen di bëgg a nettali ñaar ci rek ni mu symboliser moom al musharaka al la participation civique nee na man Abdoul Aziz bés bu ma xëyee dàqali ko kenn ci ñi ma xamoon jàpp naa ne bés boobu def naa yàlla lu ma yëgoon nee na man Abdoul Aziz bés bu ma xëyee tàqali kenn ci ñi ma amoon jàpp naa ni def naa ca bés boobu yàlla lu ma yëgoon mu ni bés bu ma xëyee jaamu yàlla yi ni ñu baree te ñi ma xam kenn yokku jàpp naa ni bés boobu def naa yàlla lu ma yëgoon sëriñ bi boobu nag xoolal boobu nag tuuti nee na bés bu ma xëyee tàqali ko kenn ci ñi ma xamoon jàpp na ni bés boobu def na yàlla lu mu yëg ni jaamu yàlla yi bare ak ni xame yi bare bés bu xëyee ko yokkul xam benn nit jàpp na ni bés boobu def na yàlla mu yëg loolu mooy participation civique dëkk bi ko ñaareel dafa am góor bu baax di njabootu kenn ci mangi Cheikh sidi El Hadji Malick ñëwoon ziar si Mawlana Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy ca Jagsa mu am luñ fa war a waxtaane sëriñ bi bëgg góor boobu bokk ca waxtaan wa ndax la mu ca soxla xam na ne ci xelam lay gën waaye ña seqoon waxtaan wa dañ ko bett boolewuñ ko ci waxtaan bi ba ñu waxtaanee ba noppi ñëw di ko defal contrat ñuy waxtaan bi ñu daaneele mu ne ana diw ndax bokkoon na ci waxtaan bi ñu ni ko déedéet mu ni li ma ci bëggoon dégg ak li ma ci doon xaar ci xelam la doon génne daal di woo kooku yeewi ko bàyyi ba ci ëllëg si mu dajale ña seqoon waxtaan jox leen xaalis bu bari jox leen dugub teg ca ceeb teg ca suuf teg ca tissu ne dem leen Dakar ngeen fekk ko këram ngeen baalu ko xaq moo tax mënoo doxal civisme ba pare koo gis ne bokk ci mënul nekk waxoon naa ko fii ne leen silmaxa yi ci jàkka ji lañu bokk ñi tëx ci jàkka ji lañu bokk bi tax allahu akbar takbiratul ihram ñu koy wax ci kaw yàlla nee na yàlla nee na silmaxa bi dul gis na ko dégg moom mu gisul ni yëkkati ngeen seen loxo waaye na dégg ni dugg nañ ci julli gi nee na ki tax dama dégg tey gis yëkkati seen loxo ba mu xam ni kàbbal ngeen ndax ci jàkk ji la bokk beneen bi maa ngi koy nettali ci Cheikh Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu sunu Pape Mansour al Khalifa ñuy ñaan doom لأن التخوف تخوف تخوف أمام الدنيا واحد تخوف الدنيا تخوف لأن بنوي نعندهم لأن التخوف تخوف أمام الدنيا واحد تخوف الدنيا تخوف قل عنكم أنا دم بقهم كيف من دم بقهم وتخمن ميدان وخمين ca jamono bu yàgg nee nañu ñett dafay nëxal société ñett daf koy xajamal société bi bu doon ndox ñett bu ci duggee rek ndox mi nëx wala ñu ni dafay xajamal société ñett bi ci jëkk mooy aljaabu suuf ki ko ñaareel mooy alwaladul aaq ki ko ñetteel mooy almaratu dalla al jarusu bekal budak pun nyambur bekal budak pun nyambur barang kali khamsi kam khaja budi bekal budak pun nyambur barang kali khamsi kam khaja budi ak halal bu yarok sagom balangay xam sikam nga am ak jigéen ju yilif boppam bala ngay xam sikkam mu ubbi génn bi dëkkaale bu jàpp ñàmburam sikkam xaaju guddi xale bu yaroo ak sagoom sikkam nga am day jigéen ju yilif boppam sikkam ba mu ubbi gémmiñam ma nga ca làmmiñ waaw ku yàlla nattoo ñett ñi da nga war a dund ak ñoom te nee nañu nee nañu ku tëx ak kullu bu xuloo ba yegg day àtte la

ñu ni waaw ku leen bëgg a nooy def ñuy da fexe ba ñoom ñaar kenn ku ci nekk di gisee sa bopp ci leeru yàlla da ngay fexe ba kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar di nit boroomam ci leeru yàlla parce boo xoolee ni dafa tëx te xamoo ni yàllaa ko tax loo doo muñ tëx bi bu jàppee ni dafa dóor te ni yàlla fas laa nit du gis yàlla ci moom tax diine pour nga dund ko ak civisme faaw mu tàggat sa xol moo tax boo demee ci Abdourahman al Axdari léegi la sax nit di ko dal da musul ala tariqi sual wal ba pare fekk na ki lay ki lay ki lay yar ki lay yar li mu bëgg di li mu lay waajale pour nga jàng moom muy melokaanu waaw bu ñëw ne la kay sottil ma ma jàpp nga xam bu dee satala ñu tëj ko fu satala bi di féete bu dee ndax lu ubbeeku fu muy féete jël serviette teg ko ci kaw loosam nga téer ko savon téer ko soccoo liñ ni benn naar dafa mos ñëw Tiwaawan ci nettali ñëw fekk gis ni xam nga taalibe tijaan yi rek wala wolof sax bala muy jàpp rek faaw mu góob yàpp mu ni waaw lii moom lan la ci jàpp amu ci yoon waaw dégg naa benn mag ci magi Cheikh Al ne bu tàkkusaanee buy jàpp nañu suukar satala góor bi loolu la wax mu ni nañu suukal ndox mi ci satala bi buy jàpp tàkkusaan comme nee na mos ndox mi bokkul ci njàpp yi waaye ba mu raxasee loxo yi egg ci gàllax nit ñi dafa dugg rek mu ni eh, ndox mi dafa saf suukar ni ko boo ko mosoon doo ko gàllax nit est-ce ah, ah. dengar dengar itu nga jot salah raxasee sa lox ba loh ini nga dia lebih te kon ah doo ya yegg ya ci yegg waaw al Akhdari nga xam ne ki daf lay ci ay waaw di def ngay gis dangay dem sax ba nga di ko ko te doo ko te doo ko yëg ñu ne ak xale bi dafa dooj xale bi dafa góob à l'âge de 14 ans nga daal nga dox tuuti rek mu mu jàngal la awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi tuma maarifu ma yuslixu bihi ka ahkaami salaati waaw jàngal la ñi nga xam ni kenn mënu la koo defal ku dul sa bopp kenn mënu la koo defal ku dul sa bopp te nag faraaidul ayni la ci lax dana yuy jàngale bu doon fii ci Sénégal la man bu ma ko doon bindaat man danaa ca boole lekk ci faratay jëmm yi la bokk naan ci faratay jëmm yi la bokk nelaw ci faratay jëmm yi la bokk noppalu ci faratay jëmm yi la bokk waaw mën ngaa am xasal nag ñu wokkal la waaye naanal ma nelawal ma lekkal ma noppalul ma ci faratay jëmm yi la bokk nga dox tuuti mu wax la sa société ni nga ko war a gunde ci fekk sa bët ci xool toppatoo sa nopp ci loo téye sa làmmiñ ci loo warul wax ba yegg sax ci xale boo xam ne xamagul luy kër ñu ni la bul di foye sax fas fas la diine fas bu ko foye di la préparer psychologique nga pare au lieu mu jàngal la njàpp déedéet mu jàngal la cycle lu jigéen ndax sarat lu jigéen la ci bu ko mbaax dabee nga xam noo koy taxawoo bu yàlla dogalee it ñu may la soxna loolu feeñ ci moom noo koy encadré loolu yaa ngi koy jàng ci daara à de 14 ans. ni diine li li ñuy wax rajo yi tabu la. boobu dañoo somb daara yi. dëgg Akhdari ba xale yi mhm. ku ko jàng déglu fees sa nopp. ku ko jàng déglu fees sa nopp di la jàngal di la jàngal di ba jigéen buy nàmpal yëre ya mu war a nàmpale te yow nàmp. وإذا سقط الاحترام ليس داعي لأي علاقة أن تتهم فلا حب بلا احترام ولا صداقة بلا احترام ولا حتى قرابة بلا احترام تفعل بصح تدن تجري أرماق ko waral جبنتي bu Orma ko waral suñu bàyyi alxaaji Mansour Mbaye yal na yàlla guddal fanam dolli ko sutur lu ko wér sàmmal ñu ko ak njabootam yëpp nee na sunu maam Cheikh alxaaji Abdul Aziz radiyallahu anhu ko di ko laayee biir ne ko Mouhamadul Mansour na nga fexe ba bul ñee borom oto yu bari yi ñi am borom kaw yi ko من يكون يعلم أن and ñaar fukki at لا صداقة بلا احترام ولا حتى قرابة بلا احترام مبوك بدون بتخاري تو عنجا تورن تأموجا أرمى جل الله محمد رسول والذين معه سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعقب الزرار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يا من أن محمد محمد وعلمني رسول الله ونون نتيم والذين معه معي قوة في يده من جبريل الله أكبر السلام عليكم li ko defee na ko yàlla santaane di woor weeru woor na ko yàlla santaane di natt azaka ci ku am alal te alal ja mag nisaab te mu xam na ko moom mu di leen ko jox te du gis boppam di xaj màkk te attan ko mën ko maayat boobu ñu ngi ci والذين معه أشداء على الكفار فولن تتنيو مصبه بين برنسيب بني دفان جوتي وينيوم بولن تتنيو روح ما فيما بينهم كني جاك سمرم سمرم لك نيجيس تراهم ركعا في صلاتهم سجدا في صلاتهم عند بوغنا moo leen may ñu am sañ-sañu yabtaguuna fadlan di sàkku la nekk ca loxo yàlla wa ridwaanan te sañ a yaakaar ni ëllëg bu leen yàlla ne jërëjëf ñu ne ko jërëjëf ndax radiyallahu anhum wa radu anhu daalika liman ah, yàlla moom ànd bu amee rek mu dugal loxo bi ko ñeenteel ci point bi mooy al mas'uliyya al ijtimaaiya la responsabilité sociale fa fa arkaanu al mas'uliyya li ñuy laaj wa mas'ulun ki ñu koy laaj wasailun ki koy laaj responsabilité boo dégg ñett yi ñoo ko dënk li ñuy laaj ki ñu koy laaj ak ki ko koy laaj suaalun li ñuy laaj wa masulun ki ñu koy laaj wa saailun ki koy laaj moo tax ñu ni lépp loo xam ni nit danañ ko ko topp àdduna topp ko ko yow nag te yàlla di ko ko laaj ëllëg loolu responsabilité la ci loxo moo tax yàlla bi mu dëggee doomu aadama moyens yi nga xam ne ñoo war a gérer sa responsabilité yàlla nee na gisuma ci lu ëpp sa bët bi ngay ak sa nopp bi ngay déglu ak sa xol bi ngay yéene inna samaa wal basara wal fuaada kullum ulaika kaana anhu masula moo tax nit nopp nopp ñaar yooyu amul rek di nga dëkk ci njuumte wala nga dëkk ci ñu la yedd waaye responsabilité bi bi ci gën a doy waar ci teraanga yàlla yàlla moo ne wala xadd karram naa bani adam waaye nee na bi may teral nit xam naa sikkam te ci sikk si ci laa teg teraanga ci moo tax ku yàlla dénk teraanga te bala ngay teral nit bëgg a lijjanti sikkam yàlla nee na ko def duum ndax ku ma fi teral ñun la borom teranga la jàppal ni sa teranga loolu la muy rëy rëy yëpp am na sikk su nekk ci biir te xam na yàlla nee maa defar benn projet de société ba mu pare ma gaaral ko waa asamaan ak la mu ëmb ñu ne ko yàlla li ci suñu suuf ñu di ko dégg ak li mu sañ li ci suñu suuf bi di ko dégg ak li mu sañ ak li muy wax tax na suñuy fit rëcc ndax di duub dégg gi ak gis gi koy gis kon lii ñu àttanuñ ko yàlla ne xaaral ma jox ko suuf suuf ne ko yàlla man ak li ma ëmb li ci sama kaw di bajantu ak li mu nekk ci sama kaw ba tax ñun lañu nekkoon talatuñ ko ngir di ko jéggalu ndax jëf bi koy jëf ci suñu kaw maag ni ma ëmb attanu moo ko yàlla ne ko bu ma koy jox doomu adama ne ko indi mana attan naa ko te yàlla nee na ba ma ko koy jox mi ngi injuste mi ngi nekk ignorant inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا يا لنا نلمتم كنن أكلخوا يتقذب وما قابلتم ذلك إلا بالمعاصي الهوالك تخوض بشخص الحشمان لأن يا لاني يقتل أبو تهانا لكو تعالى ميت لحفونك وين تكفيش أي لخوا يتقل لكو قتلوا وما قابلتم ذلك الا بالمعاصي الهدفيه يلا نين نيت ماكوي توك بروجي انه كان ظلوما نين ماكوي توك مانا توك جهول وخم لو نيو اي وقت بالي تا لمي وقت دارا دو دك تا مالغري ني لمي ام ييب يلا نين ولا قد كرمنا بني ادم واسيتم بو يلا خم سيك با با دودكو wëlbatiku ne nag maa wëlbatiku teral ci ni ma toll man yàlla yow nit yàlla dénk la teraanga ngay seet lu la nit defal ak lu la defalul ba tax nga bëgg ci ak sa teraanga moo tax yàlla mi ngi naan pour société bi dox kenn ku ne la moom na nga góorgóorlu ba principe ak conviction bi nga wooree weeru koor ci sa alal bopp joo moom tamu daggan la boo ko sàmmee alal ni dal jubóog ñëpp kenn ku ci nekk bërki dem maa ngi dégg ci télévision yi ñuy wax weeru koor góor ak soxnaam xoolal fi réew mi toll dafa enfantin trop franchement dafa ruslu sax nit xalaat na dafa ruslu sa nit dugg sa néeg sa jabar dagal la ndox mi ngay naan dagal la fromage bi ngay lekk dagal la beurre bi dagal

moom ko jëndee ko sa xaalis tëj ràpp sa néeg te bi nga koy tiim yaa ci besoin parce que fekk na nga mar fekk da nga xiif parce que xel demu ci ku mën a muñ loolu ci sama xel te fekk nga soxla ko nekk dans le besoin nan la sa xel di demee ci sa soxla oh. انت فتحت معي واحنا فيلوزوفي التصوف philosophie tasawuf ni ko yàlla wanee ci loolu dafa yéeme te xam nga lekk ci xaraamul jëmmi lekk ci moo xaraam ah ndax bu jant bi di sori lekk di di tàkk waaye seetal loo moom la yaa ko jënd ci sa xaalis xiif teg ci mar ci mi ngi nii ci sa kanam nga dëgg sa bunt la dox sa diggante loola ba tax laaloo ko bu koor bi jeexee boo ko tegee ci sa diggante sa société ak nit ñi lépp dox inna allaha yamurukum an tuaddu al amanati ila ahliha Cheikh Sidi El Hadj Mansour radiyallahu anhu nee na yonent bi keroog bi Jibril wàccee indil ko wax ne ko mbir am na de mbir mu tiis la nag ndax màkk nga juddoo fi nga xam te fi nga màkkee waaye tey nga koy dëgg tey ngay dëggu màkkatal mukarram di fi dellu si waat nag waaye du gaaw dana metti lool nee na keroog li yonent bi njëkk xalaat ci boppam mooy liñ ko dénk ci biir màkka te jaamu yàlla yi moom ko dan lay bañ jot ci moom la sidul xawm di nett mu ni wa qad jaahu jibril bi waxyi amiran wa naaba aliyun yarjul ayaati yàlla seetal boobu maam yaa ngi war a nooy yóbboo say yaa ngi war a xalaat nooy rawalee sa njaboot waaye nga ci sama loxo te yàlla war ma ko topp ëllëg borom yi ko nan laay def ba du ma gën mukk yóbbaale ak nekki ni doomu dafa làmb lu bokkoon na ci jikkoy saxaaba yi waxuma nit waaye dugub bi ñu daan dunde pepp bu ca mosa wadd sax bàyyi xel moo tax bu ca mosa na mooñ mburu bala ñu koy lekk danga gis mu màggal ko màggalin woo xam nga defe ni bëgg lekk tax fekk déedéet bu ñu paree ci mbuuma la ñuy mën a wax yàlla mi ngi ci sababu lekk moom ndax saabu bu deful dara du taxaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dugg bis ci néegu sayyidatuna Aïcha Aïcha di bale mu gis benn ruusi mburu boo xam ne poussière bi moo ko yëkkati rek dóor ko ci mur bi rek sàng bi di dugg si ne ko taxawal téyel bale bi mu jël ruusi mburu bi taf ko ci bëti xeeñtu ko taf ci dënn yi lekk ne ko Aïcha àggal suuf moo xam Aïcha àggal suuf ne ko yaa Aïcha axsini mujaawarata nicmillaahi fa inna nicmata qallama nafarat an ahli baytin fa kaadat tarjiu ilayhim na ngeen rafetal ni ngeen di nekk xéewalu yàlla yi ndax ba ñu na néeg bu xéewalu yàlla meen waaye sàggane ko tax mu tuux dem feneen te mu dellu si waat fa du tax les artisans boulangers toujours boo dee seet ki tabax boulangerie bi di ci liggéey mooy gagné waaye defarkatu mburu yi du ñu gagné xanaa du ñu yóbbu seen kër ci mburu bi ndax musitu mburu yi ñuy dëggaate di ci liggéey dëgg la dëgg la waaw bi benn arab bi yonent bi mas na ñaanal alal alal ja bari lool ba dem ba bëgg ko xañ jaamu yàlla mu ya sama alal di. lu itu def ba mu wàññeeku te mënuma koo yàq ndax mi ngi mi ngi bëgg a dox sama digganteeg sama borom mu ne ko booy moo gën a gaaw ci wàññi alal boo demee ba yëg ni alal ji wàññeeku na nga arrêté moo tax mu tasawuf bu mag bu ñuy wax Seyd Ali alxawaas moom mos mosul tey di dénkaane di wax ni iyaakum iyaakum an tadau alxubs ala al ard min gayri xaa'il إياكم أن تضعوا الخبز على الأرض من غير حائل ما الذي وطن نقوله ولا نيجي تمرو دي كيسو نفك سوف لا فك نين نوبي من فإن فيه احتقارا لنعمة الله عز وجل من دي كو لك نالا نيخ موي ياغي وني يالا ني ليماتو خيب نا te bari na yalla jox nit nit am na ku cay yalwaan luñ ci am mu doy ko am na lu yàlla sédd nit nit ka xeeb ko te am na ku ko cay yalwaan te lu mu ci am mu doy ko moo tax may wax toujours ne ñiy saraxee ñoo yor compte courant yi ñi ñuy sarax ñoo yor les comptes bloqués ci loxo yàlla bari na kuy saraxe te xamul ni mooy yalwaan ndax moo am aajo bu fajoo joxee rek mu ne allahumma ah yow de yàlla na la yàlla yàlla la yàlla yaa ma sarax nii yàlla na la yàlla yàlla na la yàllaam yooyu mooy yàlla lan ma dencal yàlla nag ma ca ñaagal dugg defar ci mbiram moo tax hmm. yalwaan aayu moo tax moo tax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farak ñoom ne yàlla ahyini miskinan sama gaañ yi nga ni ne kenn doyawu leen dara man doyalaa ne dara ndax la nga leen dencal dañ soxla axyini miskinan yal naa leen nuyu si dund wa amit nii miskinan ndax dëggal nañu nit ñaan ga dañ koy ñaanal yërmande njéggal benn baata nga ci allahumma la taftinna baadahu ah, yàlla kii di mi ngi dem waaye yàlla bu ñu desi fitna gannaaw yàlla bu ñu desi fitna gannaawam kenn ku ne xam na ni fitnay kër yëpp li ko indi ci biir jamono mooy dañu xàmmeegul li ñu war a séddoo ak lu ñu war a séddale bu ñu xàmmee woon lu ñu war a séddoo ak lu ñu war a séddale jàmm ni ñooy mu ni fa inna taadima nicmatillahi min taadimillah xamuloo ni màggal xéewal yàlla yi ci màggal yàlla la bokk موتاخ المسؤوليه الاجتماعيه بقول نيت نيت بقول سرعه الغضب الحرص في الدنيا كثره الشكايه سرعه الغضب داو مير باخول تيكونو ين باخول تيكونو ين gaaw a mer baaxul ci moom alxirsu fi dunia ñàkk sago baaxul ci ku ñu yar kasratu shikaaya bari looy jàmbat baaxul ci ku ñu ndax ña nga njaboote tax waaw ku war a jox nit ñi ñuy lekk waruñu la fekk ngay ñett la war a jox nit ñi ñu lekk waruñu la fekk ngay ñedd ndax war a fat ñi ci biti waruñu la fekk ngay nelaw war a sédd ñëpp waroo sédd war a sédd ñëpp waroo sédd ndax boo séddoo ku amul yaa ko xaj kon li mu laaj mooy salaamatu sabr maa rifq yaatu dënn yaatu dënn bi sa xol da nga ànd ak clémence ànd ak ñeewante ànd ak yërmande walaw kunta faddan galida alqalb lam faddu min xawlik waxfid janaxaka liman ittabaaka min almuminin laaj na yërmande te xoolal yërmande ni ko suñu boroom tërale ak mu ko jëkkee mu ni wax fut lahuma janaaxa dulli min arrahma gis nga doom bokkul ci service bu bokk sa ndey ngeen bokk ci toilette bokk ci nga njëkk di leen njëkk a nelal ci koo xam ni ba nga koy xam mu nekk en activité mu jëm mag di wàññeek nga naan sama papa de mi ngi nekk mag fekk xamoon ne nit sa baay moom lañ sa jëmm la taxaw ak di sa bopp li la yàlla di jël ko wax ci muy màgg muy muy muy muy muy dellu muy muy gën di màggat di nuru baayam sa maam uh-huh. ngay gën màgg yow doom bi di gën nuru sa baay yàlla nee na jëmm jooju buñ ko tegalatee añ toogal ci wetam di ko sàmmal lu muy lekk ba du fot di ko sàmmal li muy lekk ba du fot di ko sàmmal li muy lekk ba du jaawale taani xonqaayu taani ak xonqaayu naatu ak bu karo ndax boo bokkee moom lekk xëy na bi loxoom di jóg am na lu xelam nekk ni bu loxoom dellu mu jël ca loola te bu ca sa loxo jiitoo mu nekk suul ëllëg kon bokkal ak moom mu lekk ba noppi bu paree desit wax mu ne la yàlla la ci yàlla defal barke mu nekk añ plus boo ko teg say way jur kër wax fir lahuma janaha dulli min arrahma fexeel ba bu leen njëkk a tëdd ndax boo leen njëkkee fatu te seeni soxla jeexagul ci guddi gi lu ñu jóg defal ko seen bopp fa nga tëdd yàlla nga koy topp ndax ba nga juddoo nag lañ xañoon seen nelaw seen nelaw tënku ci sa ay nelaw kon ñoom it bu demee ba nekk mag say nelaw nga tënku ci seen i nelaw nañu xaar ñoom ba fàttu ba noppi ba ñaanal la ngeen ko papa ndax mën naa tëdd yaay ndax mën naa tëdd amu ne benn soxla ñu la doom tàllalal ma ñaanal la yàlla ñu yàlla may fanaanu jàmm mu nekk nelaw plus مسكين responsabilité bi dafa laaj muñ ya ayyuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu yàlla nee ya ayyuha alladina amanu yéen ñi bëgg a tabax seen société te ànd na ngeen fexe ba seen diggante na ko patience renforcée kon isbiru ubbi leen xol yi wa saabiru te ngeen yaatal dënn yi wa raabitu te ngeen bàyyante xel ci li ngeen seq isbiru isbiru ubbi leen xol yi wa saabiru te ngeen xajalante la ko nekk xajoo moroomam sunu bàyyi maam alxasi atalallahu baqaahu wa nasara nee na sunu maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz si radiallahu anhu da daan def en général message bu bëgg a jàllale rek ci moom la koy jaarale doonte waxul ak moom ba mu dem ba mel ni ba alfa xamul lu tax ba bis mu ni ko alfa man nag lu ma yëkkati xëpp la ko xam nga lu ko waral si mu ni ko danga am place ci sama xol bu ma demee ba waxatuma rek jàppal ne amatoo ci place teewul nag bu may joxe basin dinaa la jox te bu may tukki dinaa la yóbbu te bu may lekk dinaa la waaye xol bi génn na ci kon wasaab yu xajalante leen ba ku nekk yëg ni am na place ci xolu moroom war a rabitu te ngeen bàyyante xel kenn ku nekk na bàyyi xelam ci moroom waaye dëgg ci kër boolu añ tegeekul ci ëtt boolu reer tegeekul ci ëtt kenn ku nekk ber sa palaat xam nga lu mu andi dee ci biir nit te kenn du ko yëg am ñetti fan ana mu ah seetal néegam est-ce ah mën na génn de fekk nit ki dee na ci biir néegam ba yàqu añ bi ci ëttu kër gi daan nañu xam kër gi fu nit yendu ak fu mu ne ñépp toog daan nañu xam ñi ci seen diggante neex ak ñi mu naqari bu ko defee taw bi di ko contrôler dem ci papa ah man ko gis naa diw ak diw yi waaye mel na duñu wax ndax coowal ndab ma ma ngay ma ngay ma ngay feeñ ma ngay feeñ te jeexi ko yàlla bu bool ba di sa xóol bu bool ba di ku ne di wopp rek li nga gis ci dëkk bi yëpp ci bëccëg ku fi dee fa nga koy tàggee ku am doom fa nga koy tàggee làmbu démb bi fa lañ koy waxe matt démb bi fa lañ koy waxe ziyaara ji naa diw fa lañ koy waxe tase naa diw fa lañ koy waxe ataay ji di leen fa fekk di ko mott bu ñu tegee ndab li xool njaboot gi mu am ku manqué bale kenn sut seen bàyyi dana ko ñëpp seeti te boo ñëwee bala ngay sukk dinañ la laaj foo nekk yedd la ci sa kanam bi nawle ba bu ëllëgee añ bi yaa koy jiitu ci kër bu dee waxtu reer kazaalika bu fekkee ni diggante biir njaboot gi am na lu ci neexul taaw bi dee ko bàyyam mu ni bu subaa yéen ñëpp da ngeen ñëw ci man fekk ay wu leen dafay wér lu nga boo xamee ni li wax dëgg la du leen ko laaj hmm. am na loo xam ne bu ko bëgg a defar doo ko tudd ci biir jamono ndeysaan wallaahi da leen di boole di hmm. waaw boo amee jëkkër ju dëgër bopp te loo ko def mu mer te bu jàppee ñàmburam du gaaw a wax da ngay yokk kànni ci lekk gi rek ndeysaan waaw ñaa ne du tàng moom may waaw mais man ndox xaj na ci bu dee jigéen bu jógee nag ko ndox wala bisaab bu tax bisaab am na fi mu ne ko waaw am na fi jeex na. jeex na. moo tax société dafa am ay façon thérapie waaw xam nga ah. waxtu bi temps bi. xam nga. xale bu mënul jël comprimé mënul jël piqûre la ca piqûre ba wala comprimé ba dañ koy def ci sirop suukar ko jox ko ko bu tolloo ci mën a wàllu bi mu weex nga lëmasal ko ko nii de pay ko ko waaw nekk ni suñu réew mi dafa amul anesthésiste anesthésiste la manqué am na jàngoro yoo xam ne ku ko dugg doo ko xam da fexe ba nelawal nit ki xotti biir bi def ci moom da ngay def lépp mu yeewu naan fu ma nekkoon fekk pare nga ci moom kooku anesthésie générale la laaj am na koo xamante ni mënul xool si koy métti ni di ko xoj boo ko defee mu say nga fexe ba defal ko anesthésie locale di def li ngay def te naan ngi ni méttiwul xam ki war a jël sirop nga di ko jox xam ki war a jël comprimé nga di ko jox xam ki war a jël pilule dafa am na muy doxee waaw dafa laaj kersa kersa nag du rus nit kersa mooy foo wéree te yëpp ni bëtu yàllaa ngi sa kaw alam yaalam bi anna allaha yara essa mooy foo wéeti yëgal ni bëtu yàlla ci yow alam alam yaalam bi ann allaha yara moo tax fi may daanele wax ji ci limaam xaj Malik doon wax fekke bu nuuroo bu wuute bëri na lu mu yàq danga defe ni jàpp sa ñàmbur moo la ci yóbbu jàpp sa ñàmbur ci loo war a taxawee fa la tooñ yàlla tàmbale jàpp sa ñàmbur ci loo war a taxawee fa la tooñ yàlla tàmbale parce que la nga jàpp sa ñàmbur dana la ko laaj

est bu ñu jàppoon suñu ñàmbur ci di nga mel ni ana diw nga ni ma nga barab sàng mun la demal nga woo mu ñëw mun la waxal li nga waxaatoon ci kanam li mooy service li mooy transparence waaye wàññi xaalis ci kanam du transparence mooy lenn lu ci ne nga ragal ci yàlla ba pare di ko tranché nga jox kenn ku nekk xaqam te doo xaar ba mu laaj ko Cheikh Al Hadj Malick wax ni fekk bu ñu rëbb yàlla nañ ci yàlla Moussa ida tashabaha ida tashabaha xuduruka maa nee na bu fekkee li nga war a tax mënoo lu dul fekk ko ba pare jàpp sa ñàmbu nee na jaratul nga di ci bokk waaw Sénégal nag bu faatu di ko ñaanal aljanna te bi muy dund mosul lekk ci seen ceeb teranga ba ci ko yéene bi war nga ko yéene nit te mënu la xam sa terangay àdduna ñaan nga matatu kon nag ñun suñu wàllu bopp nañu xalaataan kon la Ibnu Mandur waxoon ni al mooy sa kër gi nga dëkki foofu laay daanale waxti parce que daa gis dugg ci Sénégal dugg ci kër gi màgge fa defee fa lépp nga xamul néegam ñaata mètre carré la xam ndox mi muy naan ci kër gi le mètre cube mënu ko calculer courant bi muy taal kilowatt mënu ko calculer mesuram sax yaraw yaraw mu bopp bés bu ne jëlal ko musi xamul école ñaata la xamul coût ñaata la xamul manche ñaata la xamul longueur ñaata la xamul largeur ñaata la atelier tailleur mu ñaw la ñan ko fubbee <laughs> bu làmp fubbee ci sa kër bala ngay xam fu almet di nekk Pakistan yow li la wër yëpp mënuloo ko organiser bu ñu coupé ndox mi nga dañ massage bu ñu coupé courant bi nga ñu dañ massage sa mesure bopp dañ la koy laaj jamono bu ne sa néeg bi ngay fanaan xamoo ñaata mètre carré la boo jógee woo peinture kat bi da ko kaay peintural ma mu xool la nga wala sape wala EZ ñu ne ko diviser ko ñu génnee porte ne la bi lii moo koy defar réew mu Sénégal xamoo ñaata superficie habitation yi xamoo ñaata nit bu loolu xewee ci kër gi bu ñu dajee ci mbedd mi faaw mbedd mi mel nii kon lii solution la maam Cheikh Alhaji Abdou Aziz Si defoon ci buntu këram ca Blaise Diagne lu ko ñëpp def ba ñee dañuy dagg mbedd dañ ñëw bëgg ko exempté jëlee ko ca loola mu ne ëpp naa def ci société bi laa ñuy daggee këru ñëpp ni ñu ñu ëlbatiku ne dañu bëgg tarlaat bi di nekk sa buntu fenêtre bi di fëgg Grand Dakar Colobane Fass Yëmbal Wakaam dañ leen bëgg a jëlee ñaan nañ ko ko plusieurs fois mu ciy méditer ne ko la ko naqari moom ak kooku sëriñ ñooy bokk benn boolu añ ñu bëgg ko xañ te kooku sëriñ ñu ci ëpp ñu nga dëkk waar kum ci téye xam na kuy sa ndey xam na kuy sa baay xam na kuy sa maam ñu ngi waa sëriñ bi ndax mënul d'accord ci lii fekk yëguñ ci xolam ni boolu aña bi ñu teg ci ëtt bi ci Blaise Diagne moom ñooñu ñoo ciy bokk su kon mbokk yi maa ngi dellu rek di tëj waxtaan bi ci waxu Seydina Umar ibn al-Khattab nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam fa idha ibtaghayna al-'izza bi ghayrihi adallana Allah wa assalamu alaykum wa rahmatullah